wala laale final bi diggantam ak Serigne Ndiaye 2 mbokk yi ñoom ñoo mujjee laale fële ca Diourbel drapeau chef de l'État Doudou Sané daan ko Serigne Ndiaye daan ko ñaari yoon a xew Doudou lu muy def daa fas wala déet en tout cas daal Doudou Sané nga noonu ndeysaan il est confiant moom Doudou Sané ma ngay yëngal ndeysaan ma ngay way Doudou Sané ngay way <laughs> eh Doudou ma ngay jaayu la ilaha illallah waaye duudu waay ndeysaan ña ngay saraxa ndox sarax ci lamb la bokk ndeysaan ndox xewal la duudu saane Serigne Ndiaye ngi nooru ma nga ca débat déeram moom ma ngay sotte ko ay butéelam moom it ni noppi na ndeysaan maara baa ngay wax sottikat yaa ngay sotti kay woo ñaankat yaa ngay woote ndeysaan ma nga noonu moom Serigne Ndiaye de ma nga noonu ndeysaan seen laale bi ñu mujjee laale fole ca Diourbel final équipe bi Serigne Ndiaye bërewu ko ndax daa blessé woon depuis bi mu amee blessure boobu ba nopp démb lay doo defaa sorteem moom Serigne moo ko tay mu ñëwaat fii ci stade Iba Mar 5 millions yi Manga doo dëgg moom Serigne Ndiaye de na final diggante ak Doudou Sané ñoom ñaar dina yomb wala du ci kanam tuuti ñu xool fu àndante di mujjee ki gëtëm arbitre baa ngay woote ndaysaan kay waxa ngay wax ka koy xool ma ngi koy xool nee na temps bi jot na nee na Doudou Sané kaay Serigne Ndiaye dénk Serigne Ndiaye doo Doudou Sané You're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad,

ndeysaan Doudou Sané ngi noonu déeba déeba am na lu mu yor moom Doudou Sané mu ngi dem ci Serigne Ndiaye 2 benn géej bu ñu laxas la da ko fas yéene taal mu koy taalal mu koy taalal daal na ko moom mooy délégation ministre Amadou Ba nekk koo xamante ne ku ñëpp ci Sénégal la. mu ànd ak fula ànd ak fayda. donc koo xamante ne dafa gëm Sénégal. ah bu ñëw ak honorable député Aliou Badara Diouf ñëpp xam ko ci réew ñëpp xam ko ci cosaan mbokk yi arbitre bee ngi wax ak ñaari mbëri ci final bi dox ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak Doudou Sané fii ci stade Diop Iba Mango production 5 millions arte arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 12 juin 2022 Doudou Sané Serigne Ndiaye Doudou Sané fàtt na ko Serigne daw na jëli ko jàppante nañu Doudou Sané Serigne ña ngay bëre combat bi du yomb amateur yi jug nañ taxaw mbokk yi il est 22h12 minutes Dourou Sané Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye féete la càmmoñ Dourou Sané féete la ndijoor daw na jëli ko Dourou Sané bañ na ña ngay bëree arbitre bi nee na bëre leen du yomb ñoom ñaar Dourou Sané dóor na ko tànk léegi pàdd ko Serigne Ndiaye répondre daw songu ñu ànd bërewaat def action tàqale ko waat ku ne di déglu sa morom Serigne Ndiaye daw na jëli ko daan na ko Serigne Ndiaye doo daan na Doudou Sané Serigne Ndiaye doo daan na Doudou Sané Serigne Ndiaye yamul Serigne Ndiaye doo daan na Doudou Sané Ibrahima Serigne Ndiaye doo daan na Doudou Sané demal demal ci taabu demal maa la fay fekk. Doudou Sané nanguwul. Doudou nanguwul nee na Serigne Ndiaye daa jàpp ci karaw bopp bi dafa jàpp ci karaw bopp moom la Doudou Sané di wax ndeysaan ñu ngi noonu nee na daa jàpp ci karaw gi ndeysaan nee ci karaw gi dimbali ma rek baal ma. di nuyu ñëpp. xam nga di sant ñëpp. du sale champion la mbër la quoi. mbër nga bar. xam na bi ndax nee na da jàpp ci karaw bopp. ba daan wala karaw loolu la suñu la bokk. anam mbër ngeen karaw noot karaw bi. karaw bi li da ngay nangu exclusivement da ngay nangu li bëgg na exclusif man ma nekk exclusif. xam ne man ñu ko yàlla dafa may bëre yàlla dafa may ay mboq waxuma bu dara nag mais rek indi ko may moroomam xam nga dara dara moo am bis yàlla dogal rek may daan barke man kenn suñu dara daf may daan mais su moroom moo dogalul loolu nan la ma nekk exclusif depuis drapeau de l'état bi démb moo nekkoon sa sortie bu ko jël tey nga la sa yàlla saafara bu mu laal sa yàlla bi sama entraîneur affaire bi bu baax a baax Kante Boña wala ba bëri mas xam nga di nuyu sama dina foofu Amadou Kane Diop yow nga defal jàmm yow baax fas kanam di nuyu ñëpp waa Medina sama yow lay àndal ma leen koy wax gars dañuy sonn ak suñu saa yow.